internet yu Africa Global Express TV dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi dañu koy daal di dooree ak mbirum Souleymane Sidi Seck Souleymane Sidi Seck nekk doomu Cheikh Yérim Seck ginnaaw bi nga xamante ne nag mbiram mi nga xamante ne nag moo doxoon ci digganteem xale bu jigéen bi ñuy woowee AB AB moomee nag nga xamante ni dafa àggoon ci kawam ñu daal di koy tuumal daal ne la ko doon sàkku mbir ma nag daal di nay teere ji rek ci loxo juge d'instruction bi nga xamante ne nag moo nekk ci premier cabinet bu Mbour ginnaaw bi nga xamante ne liñ koy toppee bokk na ci wàllum viol ak détournement de mineur ginnaaw bi lolé nak jàppale ni ki di Souleymane Sidi sek nek dom ci Cheikh yirim sek l'observateur dal dina dellu ci wat ak ay xibaar yu yes ci mbir mu ni mel ndaxte nak nee na bu jigéen bobé dañu ka jox première convocation fekk mu dal di nek ay vacances deuxième convocation ñu dal di demander nak li nga xamante mom modi renvoi troisième convocation bi ñu dal di indi li nga xamante mom modi certificat médical bi dal di koy déposer woné ni xalé bu jigéen bobé nak dafa feebar lolé nak mo dal di marlo ki nga xamante mom modi juge bi juge boobee nag daal dinay déglu ki nga xamante ne moo di Souleymane Sidi Seck ca mbir mu ni mel waaye gone ga nag la mu nettali rek nee na xale bu jigéen bi di wuyoo ci turu AB di ko tuumal lépp lu jëm ci wàllum viol viol doxul ci seenu diggante détournement amu ca ndaxte nag gelam la ñoom ñaar dañu doon génn ñu ngi doon génn ci octobre jàpp novembre 2020 bi ci waxtu boobee nag muy xam ne ca lañ amaloon li nga xamante ni rek moom moo di ay relation intime di sëy ga nga xamante ni jot naa dox ci seenu diggante vidéo boobee mu nga duré dix secondes ca la ko nag benn xaritam daal di yoree boobule vidéo ba mu ko ko wanee nag ca la xale bu jigéen ba dawee rek ci kii di doomi Cheikh Yérim Seck ji di ko xam ne ne vidéo boobee bu génnee dinaa wax ne da nga doon may violé kàddu yooyee nag moom la Souleymane Sidi Seck daal di teg ca loxo juge ba juge ba tamit daal di nay sàkkuwaat rek ngir ñu daal di déglu xale bu jigéen bi di ab moom mi nga xamante ne nag boobaak léegi kenn dégloogu ko ci dossier bi mu daal di joxe version des faits a xam ana dëgg Sidy Seck mu ngay xam ne nag dal na xale bu jigéen boobee yàgg naa xam góor a nekkul ci moom la ko xamee ba tey ñu daal di des ci wàllum yoon daal di wax nag ci coow li nga xamante ni moo daal di dox ci diggante ki nga xamante ni rek moom moo di kilifa bu yaana maar ak Simon ginnaaw bi nga xamante ne nag tribunal bu Dakar saa si le tembe rek daal di nay reporté waat déglu ga nga xamante ne waroon na kaa déglu kii di kilifa ak Simon ñoom ñi nga xamante ne nag jamono ji bu leen yeboo rek daal di teey ci seen nok dossier ndax daal nañu koy jébbal juge d'instruction bu deuxième cabinet ba nege ni suba nag ci bu 9h a a déglu ca googulee dossier li ko dañuy daal xaar division des investigations criminelles di dikk daal noppi ñoom tamit ci enquête nga nga xamante ñu nga koy def ginnaaw leen ci ay député yu nekk ci penc ndaw réew ma ñoom nag tudd nañ leen ci wàllum trafic de passeport ak lépp lu jëm ci wàllum escroquerie ñeel wàllum visa ginnaaw bi dikk noppee ci mbir moomee nag dinañ daal di dégluwaat ki nga xamante ne moom moo di kilifa ak kii di ñu daal di teg wàllub yoon daal di wax wàllum politique ginnaaw Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké moom mi nga xamante ne nag daal dina yëkkati ay kàddu ci élection locale yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal muy xam ne nag daal di ne ab changement du daal di am ginnaaw bi nga xamante ne nag benn liste mooy am muy liste xalif général bi Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké daal def ab déclaration nekk ni démb ci ne gi mu ngay xam ne nag daal di ne lépp lu ñeel wàllum politique ak xumbu xumbu loole nag du am ci diwaanu ku Touba Mbacke ndaxte ki nga xamante ne moo di xalif général des Mourides Serigne Mountakha moom nag la mu toogee ca boppub xalifa gi rek la mu toogee ca boppub xalifa gi rek mooy lépp loo xamante ne dañ ko doon bañ Touba du ci ab nguuram ca lañ koy daal di nangoo samay kàddu xalif général des Mourides moo ko daal di biral jaarale ko ci kar yi nga xamante ne nag Serigne Bass Abdou Khadre moo ko daal di yor waaye ca waxtu boobee nag jàppale ne ay ton tontonte daal dinay am ginnaaw bi nga xamante ni nag kii di Serigne bu soo Dieng moom nag mu ngay xam ne ni njiitu réew mi président Macky Sall dafa war a ñëw fële ca diiwaanu Touba Mbacké ci samedi gi lee rek ngir wàccaayuk màggaluk Touba gi waral na nag ba Serigne Modou Bousso Dieng daal di xam ne ni njiitu réew président Macky Sall bu ñëwee dafa fas yéene inauguré ab hôpital boo xamante ni nag dara pareegu ca ginnaaw image ñu ko wan Serigne Modou Bousso Dieng di xam ne rek daal di ne njiitu réew mi nag fas naa ñëw inauguré hôpital boo xamante ni niveau 3 la ñu koy tuddee Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké moom nag muy sëtt mooy xam ne rek daal ne loolee daf koy dénoncé waaye nag ku ci yabul rek daal di dalal sa xel ndaxte moom parewul ak ay nitam ngir yuuxoo kii di njiitu réew mi président Macky Sall ndaxte kii di Abdoulaye Wade musta woon a ñëw Touba ñu daal di koy yuuxoo te mustawul woon a sàkk ci ay nit di xam ne rek daal di ne bu ñu ko yuuxoo comme nag moom muy xam ne ni sët la te doonul koo xamante ni dafay yàq yoonu murit dafay tënku rek ci ndigal li nga xamante ne xalif général des mourides daal dina koy xamle kaddu yooyee mu ngi koo béjjee ci suñu naataango ya nekk ca RFM ñu daal di addu wax ci li nga xamante ni nag moom moo di wàllum people ginnaaw déclaration bi nga xamante ni nag kii di Fambaye daal di na koy def ak suñu naataango ya nekk ci Seneweb Fambaye nag di xam ne rek daal di ne feebaram ak jafe-jafe yam cay jànkonteel saa si la tembe nag soxla na ci njiitu réew mi président de la république Macky Sall mu daal di koy dimbali ngir ñu yóbbu ko ca diwaanu ko tugal bu ko defee rek mu daal di faju li ko manqué nag du leen lu dul ab fofal naaw fee indi ngir mu daal di cee mën a dem daal di faju ji ca waxtu boobee nag kii di Fa mbay indi na ay leeral ci jàngoroom gi nga xamante ne nag Abdoulaye Diop Xaas nekk ab tradipraticien boo xamante ne taxawoon na daal di ne dafa kii di Fa Mbaye Fa Mbaye daal ne loolee du benn dëgg ndaxte nag kii di Abdoulaye Diop Xaas daf ko sàkkuloon rek nee na ko defal benn vidéo ca waxtu boobee nag ca la jógee maquillé wu daal di def vidéo bi muy xam ne ni kàddu yamu ca wax sax kii di Abdoulaye Diop Xaas moom moo ko ko daal di waxloo ginnaaw ba mu ca noppee envoyé ko vidéo boobee rek ca la vidéo ba tas ko ci réseaux sociaux yi bu ko defee ñuy xam ne ni kii di Abdoulaye Diop Khass fajul benn yoon kii di Fa Mbaye ndaw si ba tey mu ngi des ak métitam te moo ko génnee ci làmminam mbokk yi li moo gënoon a fees ci xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah wooy leen di abonné ci suñu chaîne Africa Global Express TV ngir am ay xibaar yu mucc ayib